aleykum wa rahmatullah imam Moustapha Diop wer waangi ni na fang il est 6h32 minutes 6h32 minutes gis nga fam nek te 7h nak 7h une minute la jant bi fenk euh gis nga ko famu nek ne euh yow wa yeen wa Côte d'Ivoire nak na ngeen ma dimbalé ba bu len ma xey su wa nan ma wer gis nañ wer yu Côte d'Ivoire gis nañ ko Bamako <laughs> na leer léegi léegi léegi suba inshallah ci kàttanu yalla weer wi muy njëkk a suux jant bi parce que lu tax gis nga différence bi fii ji weer wi fenqe ak fi jant bi fenqe euh, différence bi fi nekk day feeñ day répercuté ci fa muy sowee suba te loolu nag dañ ci bàyyi xel su ko defee loolu mooy tax weer wi mooy njëkk a suux jant bi suba fii ci Sénégal dana mat euh, dana mat ñaari minute yu tegal sax ay ay ay seconde su fekkee ne yeneen dëkk yi nag dëkk bu nekk sans départ ci la muy différencier su fu mel nekk Saoudia tey ñoo ni kii tuuti waaye matul sax ñaari minutes ñoom itam li jant bi njëkk a suuxee weer wi ñoo fa ànd waaw kay ñu ngi lay ziara bu baax a baax jàppale leen ko génne mukk yéen a weer yéen a ko waa <laughs> waaye ni ngeen ñu dimbale rek boobu leen ñu ne eh, talaata si eh, altine si ngoon ngeen naan ñu weer wi feeñ na ñu ngi lay ziara bu baax jëre asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu di leen ñaanal jàmm di sàkku ci yéen ñaan di ñaan borom bi boole ñu defal jàmm di def benn gendeeku ci weer wi li tax ñu def ko itam tay dañu xëy gis euh, ci fajar bi ñu jullee ba pare ba euh, six heures trente cinq minutes Euh, ñu ngi gis weer wi ci asamaan si euh, muy mu am réyaayu euh, trois virgule trois pour cent trois virgule trois pour cent réyaay te boobu li des ci jant bi fenk mi ngi tollu ñaar fukki minute ak juróom ndax jant bi mu ngi fenk sept heures une minute Euh, loolu nag moo ñu indi pour ñu xalaat ci lii ak euh, euh, fan lañu jëm ndax nit ñi delloo si waat seen xel ndax moytu xëccoo yi nga xam ne ñu ngi koy xëccoo ak féewaloo yi ñuy féewaloo te yu ci bari ñu teg ko ci suñu bakkan ndax soo xoolee Euh, weer wi wax euh, tay euh, mooy waxum mooy njëkk a jant bi ndax lënkaloo weer wi ak jant bi ak suuf si mu ngi am altine ci le le huit ci quatorze heures vers quatorze heures foofu lay ame su ko defee ñu ànd ba vingt trois heures Euh, yu tegal tuuti pour que weer yu commencé euh, génn bàyyi jant bi su ko defee bàyyi jant bi ak suuf si su ko defee génne commencé génne catam di am zéro virgule un euh, zéro pour loolu ci guddi lay doon kon suba ci altine bi insha allah weer wi mi ngi suux dix-neuf heures ci heure de Dakar suba lundi 8 avril weer wi mi ngi suux 19 heures 20 ci heure Dakar jant bi di suux 19 heures 22 kon weer wi dina jiitoo jant bi ñaari minute weer wi dana dugg ba mu def ñaari minute jant bi di door a te weer woowu te weer woowu ñu wax ne dana suux 19 heures 22 euh, jant bi bokk weer wi di suux 19 heures 20 euh, soo demee ci Euh, tuuti fële fu mel ne que d'Ivoire par exemple dix-huit heures vingt-six weer wi dana fa suux jant bi dafa suux euh, dix-huit heures trente kon ñeenti minutes weer wi dana ko fi jiitoo jant bi soo wëree ci àdduna bi yépp itam euh, suba amul fenn ci diggante fi jant bi di sowee fi jant bi di sowee amul benn dëkk boo xam ne danañ am zéro virgule zéro yépp ci dëkk bi zéro la ñuy taxaw position zéro la ñuy taxaw éclairage zéro loolu mooy muxaax mooy weer woo xam ne image dara nekku fa maanaam leer amul dara leer te leer yi ñooy ahilla yi euh, kon euh, loolu nañ ci bàyyi xel euh, ku mu neexit mën nga vérifier ndax yaakaar naa ne boroom xam-xam yaa ngi fi ñu xam ci astronomie ñu ngi fi ñu xam weer nu muy doxee ñu ngi fi Euh, suñu demee ba talaata incha allah euh, weer wi dina génn euh, ci ngoon si talaata ci ngoon ak éclairage bu yam ci un virgule sept pour cent un virgule sept pour cent weer wi dana dem ba vingt heures vingt muy door a suux maanaam juróom fukki minutes ak ñaar ak juróom-ñett ginnaaw bi jant bi soowee juróom fukk minute ak juróom-ñett ginnaaw bi jant bi sowee weer wi dana fi des danañ ko mën a gis it ku farlu ko mën a gis ak éclairage yu euh, un virgule sept pour un virgule sept pour cent vers euh, côté yooyu euh, incha allah ku farlu da ko mën a gis waaye nag ak farlu ndax du kawe noonu te du rëy noonu itam yenn rëyaay yi rëyaay rëyaay bi mu rëy nag bëtub kese mën na koo gis bëtub kese mën na koo gis talaata loolu talaata ca ngoon la waaye altine ci ngoon moom euh, weer du mën a feeñ ndax mu jiitu jant bi loolu itam nañ ci bàyyi xel euh, ñu ngi ci soñ ñi mbokk yépp ñu di ko ñu xool ko te farlu ci te itam euh, nu ragal yàlla nu ragal yàlla ci moytu xëccoo yi bu mu yóbbu mukk ci nu fexe ba wax nit ñi wari leen wala woor leen ci loo xam ne amul ndax dat yi dat yi nga xam ne moom la ci lañuy ñuy ci lañuy doxe suñu diine ci lañuy ñuy kii dat yooyu suñ ko faussé danoo mën a faussé lu bari suñ ko ñàkkee danoo mën a ñàkk lu bari parce que manasikul xaj yi ci lañ koy takk ci lañuy ñuy takk koor yi koor yi tey ci lañuy ñuy takk lépp rek ci lañ koy atteew kon suñ ko suñ faussé dat yi na yasalunaka ani lahilla xul hiya mawaqitu linnaas mawaqit yooyu nag muy rendez-vous yooyu suñ ko faussé dafay indi jafe-jafe laylatu xadra nga ca leneen a nga ca leneen a nga ca kon nañ ci bàyyi xel bu baax nu farlu xool ko te itam maandu ba bu kenn xëccoo yóbbu la ci nga wax loo amul wala lu la leerul nga wax loo amul wala lu la leerul ñu ngi jaajëfal ñëpp di ziyaara ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk mi gannaaw bi setan video ba pare ñu lay ñaan nga bëss fi ñu bind jëm bu fekkee gande ci chaîne bi nak bëssal fi ni ñu bind s'abonné après nga activer cloche bi ni mën nga tamit wax sa xalaat ni ci commentaire yi lii nag doo ci fay dara te dina tax vidéo buñu dugalati di ngi ci jot jaangi ngeen jëf